الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم البعث والدين <clears throat> إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ألا بتقوى الله تطمئن القلوب ففي الأمس القريب كان حجاج بيت الله يطوفون بالبيت الأتيق وقفوا بعرفات الله وازدلفوا إلى مزدلفة ونحروا بمنى فرجوا تائبين مغفورا لهم فيجب الاحتفاظ بهذه التوبة والإنابة إلى الله فخطبتنا اليوم موضوعه وماذا بعد الحج أيها الحاج الكريم لقد ذهبت بذنوب غفرها الله سبحانه وتعالى وأنت الذي لم تحج صمت عرفة يوم عرفة فغفر الله لك الذنوب وتبت إلى الله متابا فماذا بعد التوبة والإنابة أنت الذي رحلت إلى الأراضي المقدسة ورجعت سالما غانما مغفورا لك ماذا يجب عليك بعد الحج الاحتفاظ بالتوبه كنت تبكي وتصب العبرات حول الكعبة المشرفة تائبا منيبا إلى الله فأين أنت من هذه الابتهالات ومن هذا البكاء ومن هذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إن كنت مخلصا فعلامات قبول الحج أن تطبئ الحج بصالح الأعمال وأن يتغير حالك بعد الحج عن ما كان قبله لتكون من الفائزين ليكون حجك مغفرة للذنوب فإنك ذهبت ملوثا بالآثام وجيت طاهرا نقيا من الآثام يجب الاحتفاظ بطهارتك والإخلاص لله وشكره وحمده على أن غفر لك عباد الله لنتوب إلى الله متابا لا تكن كما قال تعالى كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثا عباد الله يجب أن نتبع السيئة الحسنة كنت ملوثا بالسيئات ذهبت فقلت لبيك اللهم لبيك فغفر الله لك الذنوب وعفى عن السيئات يجب الاحتفاظ بطاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون من الفائزين جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله يجب على المرء بعد توبته وإنابته إلى الله أن يكون صادقا في توبته لقوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا التوبة النصوح أي أن تكون خالصا في توبتك أن تكون صادقا في أوبتك إلى الله واتبائك لسنة رسول الله لا تظن رجوعك من الحاج أنك نجوت بل إن الشيطان بعد حجك كان خائبا خاسرا وهو اليوم يريد أن يدنسك برجوعك إلى المعاصي وانتهاك حرمات الله يجب أن تحتفظ بحجك وبطهارتك وبتوبتك وبإنابتك إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يجد الشيطان سبيلا إليك لا تجعل هجك افتخارا وسمعة ورياء ولا ترجع إلى سيء الأعمال ظانا أنك تطهرت إذا بعد طهارتك لا تدنس نفسك بالمعاصي وبالأوساخ وال وبالذنوب وبأنواعها بأنواعها المختلفة عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم فبرحمته وبمغفرته غفر الذنوب لنا والشيطان كان خائبا يوم عرفة بأن غفر الله الذنوب التي كان يمكن أن تدخل الناس الجحيم فغفرها الله فقال اذهبوا مغفورا لكم إذا فبعد مغفرة الذنوب بقي الحرب بيننا اليوم وبين الشيطان انه هي الحرب الكبير اي الغزوه الكبرى فاننا كنا نحارب اي محاربه النفس هو الجهاد الاكبر جهادك مع العدو انت تراه لكن جهادك مع الشيطان فانت لا تراه والشيطان يمر عليك من حيث لا ترى اي بباب شهواتك ورغباتك فهذه هي قوة الشيطان أنه لا يضربك بما يسيئك ولكن بما يرضيك أي برضا نفسك بشهواتك برغباتك هذا هو المفتاح الذي يفتحه الشيطان عليك ليفسد عليك أعمالك الصالحة وقانا الله منها مكي نسنت بربي سبحانه وتعالى on alla tiga tiga nden cuna alla dangani aken alla subhanahu wa ta'ala ani tunkanga agada khairin gabe nya hada mare khairin yugo fayke ke hiju be kundu o nga iga iga yille hiju hijunga ke hiju be o ga dangay kubita njatu no kondi nya nyasi manala tenni hagari gari ga dangini adan ke dangi mo kha dar sunyana xay nanti jaga hadamare mo wi obire ke ne kundu ay nya haynana orano kondi o haka dangay kube nuga daga hiji alla da khairin po ñe ñanga dangani anga daga nga killa Allah, ka wuren nga alla nga Cetane tinga nda yebe yeɓeɓe mbirandi nda junubu ben koro nda suri kattanga allah yang hoore li kattangan mpaka junubu allah ti kada meñi arafa baranga hatan kullen do binne tungka nyugo ndo do hondo marandana aka kulor nga bugu medi moko suri aka suti allah bane ori nyimanga kan nu cuña kan xan konini asundi sundi labbayka kan nu nyabane iramu nyabane kuloru nu nyabane osu siganjo nga osu wo wunuti junubu be odi gari allah ti kada ga nyampa ko suma tun ka hinna nan pai tun ka bannan pai nyampa ga suma ga kada duro koto de silhanda bane watazawadu fa inna khayra taqwa wattaqun ya ulil albab e haqlanto gella ga ni haqlanto ni ke junubu be ga nyaaka nyana jahannaba no ke junubu be malaika nu nga ma ho ho to goida su saha su saha nyani kota ngari ninga koyna kay khaka daga filmunum payni mo gobe kan nyam pasudi gella kha ganya mukhlisina lahuddin gella kha khala sin tonya gani su aga gari tungun tonya gana kha isu taubatan nasuha agari tubi katinga tubu tungun tenya gani aga mari wosuye aga mari togomure aga mari hotanai agari kiamuru a kha daga nyam pa kam khali ko Allah gada kenya serebe danga Allah datti ada ada khairi khore nyanga ndanga anga daga ke kota ina daga sigi arafai angara jonko surai ajarai bal ampungai an jonko kay bawni allah ka yam pan junubu nubenu ganyit katini ande ngene jahanna no kon kembere nganna allah tiga anga katiken kitana yo ka gongonde be go maka kenni lenki khutuba nga hubbe kamma on qawa man man qamdu on qawa kam mo ka nyana hijum pal man duri mo nga gan qawa kebe nyana hijum pal on qawa nyana kam yalla ndaga hiji libane tayti al haji anyeme subhanallah ka kati allah ya tindangani katanga telle ati silhandang utude silhandang ka hosirin nikanga allah ni atando allah nanda nandaga angana har milonu tamme nyari niere anga mulam milonu kutammi minan hakita ando allah kanni ngiriere aw allah kanni kanni menia allah kan ni huwayi aga nyokko kati hosirenga mananya baraj blenden tengando huburun nakh sere ya khe nga sere ya xew tangaw allah ke nyaaxe nga allah imeda ko ayahsabul insana lam yarahu ahad yalla nda hon tang alla ba yalla nda si ki alla yakin tang ba yiki alla nda lanke nga na hakle langa na suhunu langa anda sima ya yakin tang donc hadama rem me ando ne nga ngana girino ngawre na nyimma ha nyana du koros ndana an nandu koros am jum palle am makanya nanti wasuhi nanti ntinda ngal haja mi nanti nda nganda ngara kempe hinin kel dinto konyai anta hari adim pasi da ko anda ngara anta tininda al haji subhanallah anta tininda haja e ketan ken kenyai maxangolli surumbonondi ti toxo muriyedu koyintaxudo fotanay i be gana konandama hobure ko a ganati alhajawurini hijanay awa ngana salli ganati sallana a ngana inati jakka bagandana seremati farenda abada nanti alhaji muhammadu rasulullah serema ko abada e kengureni nanti alhaji heha la i be nda ko hobure heti mais gama ko maxangollum bonondi ti du koyintaxudo du mugiyeyi an natu nanti allah hajunna meniya allankanne awo la hiyan kuɓe nogi karna allah gatini ke haju a ciyeɗa te a horen takki nyini ke me menin Allah allan kanni ke ɓe siga kala gollu kuda bari an allan kanni ke allah hakke ñaxencene ga daga angari ala dan nema xore ñanganda dudo koto anda gen kane anga al hala bedi anda gen pallem maxaña ke de tuwano nda kenya ko de tuwano nda kenya ko ti serenga pour an natunanta hijullage asage halle hiju ngangana jikkununda sefe mogondaro namba kunkorosi korosi anga tunu nanti hoga be changer ya ganji kebe aga dabagandi arafa aga dabagandi minna aga dabagandi muzdalifa kunya ganji manya kafunga de ida fo yilla hara se hem okati soron agolli nyam mugado soron naka ado alla naka asage wurungille aga nafilene adi kilen to ko kallendi bawna daga kallen adaga tintai ada kasan kullo du namu iramu angari rodu bane andan kasan du kembire ngangana ari keta annan kawannan tinto Allah yan piju kenna hanniya agada Allah kanne goranga aga tuinan comportement non aga tuinan Allah nan bakunti khamma kanyan ken giri hiju ngallita شيطان دي كتن كنا غاتي اكيتا كوني كونجيني ساسا كورا غول نيوب سبحان الله الله كنو راك سكين يبخ قغما دغا هيجو غادي عرف كوتو غدا سومو باني الله دا الله ادو سكو هو هيجا نون نانيا باسو ماها كمبرين كو كوتو خورو مينو الله غني كينان مخي هال نيا كوتي نان كوسانتا سالي awoxo kembirenga tuwanu nga kono biresu sallen kotani ñaxale ñe nanti alla da junubunu ñabogoy umma xosanta ke ñaxale yilla xadi kuteye kotay kembirenga awa hijanun kamma awa hijanan balunun kamma husuna ña allan kannano ona tu nanti alla da fare ñemme axiri nanti wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin ad-damir ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma baluka bi bi wa bik aganay alla gati fare ñada alla batude maga harati allah batteni ma kallenga nallagati kittenga kotaɓe awreniya toujours magati ke wakati gadangi siginna honneña kutenga lalala allah batuwa ma kallenga nallagi kittendi allah da kettelgondi fareña yo ngeɗan kenka agana gati fareñana allah batuma kallenga naraga kotaɓe ngeɗan kenka corona du ko tono ki len toko du do golli suru ngom ma hi halle khara ko ti hoburu nyange aga nyano daga ni mi sem pokore reng alla ga no daga kisi ku no ga daga hiju alla ga na hiju kuragi daga ni na muso amuso nyar janna yibe no ga ma daga alla ga na no ndira ngata tana ga telle kembere ngona alla nyaga alla ga no nyu soro ga diga mi ko ga batina hosreng mbokk ñu sant bur bi subhanahu wa ta'ala si ay xewel yo xamne mom yalla baxé nañu ko te xewelu yalla ken mënu ko lim ba mu jeex yalla si bopam dafa tek défi bo xamne ken du ko relever ne wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha yàlla dafa ne bu len nexé na ngeen ko konté ba son mais do len ko meuna lim ba mu jeex ndax da ngeen di lim li ngeen li feñ waye li neub mom gisu len ko te meunu len ko lim kon xewelu yàlla beuri na ci kaw doomu adama yi mu bok ci tabaski bi nga xamné ci lañ joggé ak ujjaaj yi nga xamné dem nañ aji makka muy xewel bu reey reey reey ndax ko xamné da nga fess del ak ay bakkar bakkar yo xamné xamoo lu la ci génné te bakkar yo xamné meun na la yóbbu tabbi safara yowmal qiyam yàlla ne kay wuyu si nga ñëw nga ne labbayk allahumma labbayk ay yàlla wuyu si naa la wuyu si naa la wuyu si naa la maa ngi maa ngi lay déglu di déglu say digal ak say santaane pare si dundu sama giiru dundu yàlla ne bu leelu dëggee si yow day ñëw leen yéen ñëpp ngeen daje bésu arafa si béréb bi nga xam ne mooy arafaat bés boobu ñëpp daje fa couleur yi disparaître amul ki ku xess la ki ku ñuul la amul ki buur la wala ki jam la wala ki li la wala ki amul ben différence ba lak yi ngeen di lak sax yépp disparaître lan moo fa des labbayk allahumma labbayk foo mënta jóge baat yooyu rek nga fay dégg kon ñëpp daal di nekk ben kon moom yàlla subhanahu wa taala yéen ñëpp ngeen koy wéetal comme ni mu ko waxee jaamu leen moo yéen ñëpp man kese maay seen borom ngeen ñëpp nag ngeen ñëw bés boobu nag yàlla ne malaaka yi maa ngi leen di seedeleew day ne ñii ay baakaar yu bëri la ñu indi waaye lan moo fi leen fi indi ñu ngi ni di jooy baakaar yi rëccu lépp fay si alal bu dul jeex sonn lu nekk maa ngi leen di seedaloo a jéggal naa leen ñoom ñëpp ñii bi demul nag yi yonent ne leen ah yéen tamit boo leen wooree rek yàlla boole leen si kon ñu ñaan yàlla yàlla boole ñu si ñun ñëpp nag kon bu fekkee loolu am na bi question bi tey mooy xutba bi tey mooy lan moo ñu war après koor après aji mag lan mooy wareef après aji mag ginnaaw bi ñu ko joxee ba pare lan moo ñu si war li ñu war kay mooy ñu conserver lu baax loolu nga xam ne am nañ ko yàlla da nga yóbbu tilim tilim yoo xam ne mooy baakaar yi nga xam ne ñoo la feesaloon dell baakaar yoo xam ne ñoo la diisal ba munoo jàll dugg àjjana baakaar yooyu yàlla ne kaay wuyu si ma ñëwal bérébu arafaat ñëwal ma dee la lan laa lay dee watazawadu jëlal yóbbel ban yóbbel mu ne fa inna xayra zaadi taqwa li gën nag si yóbbel yi mooy ragal yàlla boo ma ragalee rek am nga yóbbel boo xam ne benn la mais lépp la c'est un mais c'est tout benn la mais lépp la muy lan ragal yàlla ndax ragal yàlla moo lay ñaax def lu baax lu nekk waaye ragal yàlla moo lay baare mel ni benn baras bu blende boo xam ne mooy dox sa diggante lu xaram lu nekk loo xam ne mën nga ko def boo xalaatee ne nit ñi gisu la waaye da ngay ragal yàlla dana ne may yàlla moom gis na la te nit ñi amuñu àjjana nag safara de waaye ki ko yore mu ngi lay gis waaye malaaka yi nga xam ne yow gisoo leen ñoom ñu ngi lay toppatam maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid doo wax benn baax boo sëqatee sax ñu bind kon malaaka yooyu lépp looy def ñu ngi lay gis te yow gisoo leen kon ragal yàlla bobu bu la dik bu fekke ragal yàlla dik dikki na la ba nga xamne yaangi dund ak mom nga jele ko beurep yu tedd yi yàlla ne li nga fiy jël si jo yóbbel ginaaw bi nga deme aji mak si aya yi nga xamne dafa ne al hajju ashuru ma'lumat yàlla lan la fa wax dafa ne nga jël yóbbel yóbbel bi gën nak moy ragal yi mu ne nag ragal len ma yen ñi am xel kon ku am xel ku nek yàlla ne ragal ma ragal ma nak moy bayil moy yi ngay def moy yi ngay def man yàlla yàqalu dara waaye yow mii di koy def dina la yàlla xal ëllëg lu bëri bëri bëri kon ndege kii mooy yàlla bu foog nee ne moom moo gën a yeew moo gën a développé moo gën a évoluer kon yaa ngi nax sa bopp ndax yàlla bés dina ñëw dafa ne laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka ghitaak fa basaruka al hadid liñ la doon avertir yëpp ne moytundiko moytundiko nga bañ nekk si mooy yàlla kon yow dafa am lu muuroon sa say bët lu muuroon sa xel tey loolu muri nañ ko dindi nañ ko tey kon tey yaa ngi gis yaa ngi jàkkaar ak li nga xam ne mooy mbugal bi ñu la doon euh, mooy tund ku ne na ko moytu kon mooy ne boo demee ba aji màkk mooy ne jege nga yàlla subhanahu wa taala dem nga ba béréb bu yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi kon ragal yàlla boo ko amul foofu fan nga koy amati mbokk boo amee ragal yàlla boobu nag lan moo la war ginnaaw bi nga delloo mooy nanga nga ak ragal yàlla na nga dëkk si ragal yàlla motax borom xam xam yi ne ku dem aji mak bu ñëwé signe ak indice yi nga xam ne ñoy mom lay xamé ne sama jaamu yalla bi de am na njëriñ mooy ginnaw bi mu dello ay comportement doxalinam ak jëfinam mu soppeku ba nga xam ne lu bon lu mu doon def rek légui dal ci dal di sori ku ko gis rek di nga xam ne ni mu meloon démb tey melul noonu ndax jooy rongañ yi mu yi mu wàccee si kaaba ga si arafat si munan si musdalifa rongañ yooyu demul nen am na lu mu def si moom am na jeexital am na lu mu def si moom ba nga xam ne yenn yi jomb na ko ndax du ma dem yàlla setal ma bàkkaar yi ma diisaloon yi ma doon mën a tere ko àjjana yàlla effacé lépp ne ma demal bés mel ni bés bi nga ganesee bés bi nga juddoo ñëw si àddina amatuloo benn bàkkaar kon du ñëw rek seytaane bés boobu seytaane dafa meroon am lu ko metti ndax li mu ñi mu doon ñaax si lu bon yépp yàlla setal na leen dindi effacé lépp gracier leen seen i bàkkaar seytaane mer bi nga ñëwee nag seytaane jéem di la nax nag ah yaay allaaji ngay tiitaru ne ah maay allaaji maa yi day mel ni kon sa jëf yu baax yi yaa ngi koy puukaréwo te yàlla ne laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada bu leen yàq sax asaka bi ngay joxe boo ko tiitaroo rek di si wane sa bopp di ngistalu yàlla ne ah kon de man soxlatuma ko boo ma defalee na def na nekk te yàlla tax bu dee julli bi na man maa tax bu dee koor gi man la aji màkk bi man la asaka bi ngay joxe man la lépp loo def man nga yaat maa tax nga def ko malaaka yi gis nañ ko man mii gis naa ko noté nañ la noteel nañ la mu ngi lay xaar lu tax nga koy wone nit ñi di ko tiitaroo boo ko tiitaroo won ko nit ñi ba nit ñi félicité la kon sa fay baa ngi noonu kon mooy kii dem aji màkk tamit moytul nga yàq sa aji màkk si ay puukare ak ay tiitaru walla lenn bu la nit waxee alaaji bu baax na dafa ne waa aji aji aji dem màkk ji waye kula ko waxul bul mer gis nga ki daf ma soxore gis mu may tuddé sama tour ba légui duma wax àllaaji subhanallah kon xana yow loolu mo la ko tax loolu mo la tax na nga xamné kula ko wo alhamdullilah bu ne àllaaji dara nekus waye kula ko woowul yonente sallallahu alayhi wasallam ken musta deg ñu ne àllaaji muhammad rasulullah te mom mo fi ñëk aji mak kon na kula ko wax waxul lu bon dafa ne ku ne kula ne aji kat bi aji wor kat bi kon na kula la wax àllaaji tam nonu la kula ko wax bonul waaye ku la ko waxul bul si mer wala nga koy jàppee lenn ñu ñaan yàlla yàlla def ñu ñoo xam ne suñuy jëf yu baax dañ koy def te yàlla tax mu njëriñ ñu fii si àddina njëriñ ñu si àllaaxira te nañ xam ne yàlla li mu ñu dénk ak li mu dénk ñi dem aji màkk mooy ragal yàlla ba dem na ba wax ko yonent mi nga xam ne moo gën si mbindee fii ne waabud rabbak hatta yaatiyaka al yaqin ne Muhammad li gën a wóor daal si àddina bi ndax àddina lu jeex la ba pare bés bu nekk day da ngay gën a sori àddina di jege alakhirah waye nit ñi dañ koy gis ne lu sori la innahum yarawnahu baida wa narahu qariba ñom dañ ko gis ne lu sori la te lu jege la da ngay nek ak nit tay tay ni suba ñu ne la dee te xamul won na ni ay fukki at ñaar fukki at juroom fukki at lay kon lu lu jege la yalla wax nako nit ñi dinañ yasalunaka an saa ayana mursa fima anta min zikraha إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جاي دنج لا كان لا محمد نلان من خوما كان لا الاخره كان لا ديرت يو نياتا غاي دوندو لا ديال سا بوب يو لان غا ديف با بار با لان غاني يعني الاخره كان لا واو الاخره كان لا يو لان غا ديف با خامني بو نيوي ديغا موتشو كون لي غنا ام امبورطانس يو موي بان جيف غا ديف با خامني ديغا سوفي بو ني كان لاي نيو بو نيوي يو امولو dafa mel ni bis buy ñëw nga ne kañ la bis bi di ñëw ñu ne balaa ngay ne kañ la utal sa ticket yow wutal sa sa sa ticket bi lay dugal si bis bi ba pare kon nag yow defal say jëf yu baax ba pare moo tax yonent yàlla ne ko bul ne ne leen man xaw ma kañ la waaye bés bu ñëwee de dañu dinañ xam ni li ñu dund ak nu mu yàgg yàgg dañuy foog ne benn heure la rek benn guddi la wala benn bëccëg rek lañ def si àddina ak boo fi te defoon téeméeri at day mel ni benn demi journée rek nga def si kaw suuf kon demi journée boobu nag nañ ko defar ba mu baax yàlla dafa ne yonent bi na jaamu yàlla ba kérok de kon yow mi dem aji màkk yàlla defal na la gënal bu reey reey bàkkaar yi nga amone yeb yàlla effacer nako bo ñëwé nak shaytané dalay bëgg nax ne ka ñu lonko yaangi won congé légui reprendre nga nañ ñëw nga defaat lépp dedet lépp luy lu bon segg ko nga tek ko feulé nga xamné ne loolu da yàqal rek ndax yàlla wax nako tamit ci ci ay aji màkk yoy ne ñi nga xamné ne wa min annaasi man yaqulu rabbana atina fid dunya dunya rek fa la yam de وما لهم في الآخرة من خلاق كودم أجي ما كان يلا ما يمادنا يلا نوال من نال ما يمادنا أي مليار أكاي لونك لوبك وبرلوم ستك وما لهم في الآخرة من خلاق واي أمني بين نوال يوم القيامة واي نك مني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا يلا نسي يلا بوله نيجا خمنا تم دنيا يلا ما ينيو أم لباخ في أدنى بمونا دندو سنو دندو بباخ دندو سنو دينه بباخ بدرا دو دخ سنو دينه waaye àllaaxira tam nga may ñu lu baax muy àjjana yàlla nañ ko yàlla defal rabbana ruddana ila dinika maradan jamila واغفر لنا ذلتنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الابرار ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم اغفر لاولنا واخرنا اغفر لهينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا